ñu ngi dalal Seyni Beye présidente euh, parti convergence patriote démocrate euh, nekk itam coordonnatrice coalition defar sa réew bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen ñu fay di leen remercier si seen invitation bi di ci am mbégte bu bari. alors Benno Bokk Yaakaar euh, ngeen woote dimanche bi daje lan moo waral ngeen daje ak taskatu xibaar yi ak lan moo sabab ndaje mi. waa ndaje bi ñun jigéenu Benno Bokk Yaakaar ñoo des ñoo. amoon benn atelier boo xam te ni docteur Cheikh Kanté moo ñëwoon vraiment di ko euh, présider. et ça nous a permis euh, li ñëpp xam ñu am si ay euh, firnde yu wóor avec des chiffres à l'appui si li président fekk si dëkk bi en 2012 ak tey fi mu ko yóbbu en 2022. si domaine bu mu mënti doon nag vraiment docteur Cheikh Kanté yaatal xam-xamam jox ñu si ay firnde yu wóor. donc loolu tax ñu ne ñun nag li ñu doon li ñu bëggoon tey lañ koy gën a dëggal mooy président Macky Sall moom mooy suñu candidat pour élection 2024 incha allah. ngeen mel ni kuy wañ loxoom daal yéen fu ngeen toll moom yéen a ngi def ay pexe ngir euh, moom mu mën a dem alors que waxoon na ne du dem déjà balaa problème constitution bi di ñëw ak menaces yi nga xam ne moo laxasu ci ginnaaw troisième candidature euh, lan moo waral ngeen am démarche bi. wañ loxoom ah, dëkk bi jar na ko. Hmm. jar na ka de dañ koy wañ de Sénégal jar na ñu wañ loxo président Macky Sall parce que Sénégal ñoo soxla président Macky Sall encore pour cinq ans. lu ne Sénégal ban xanaa Sénégalu ñeen ñi ndax am na ñoo xam ne ñoom ñetteelu candidature la ñu bañ a dégg. waa ñetteelu candidature wala Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar. Sénégal moom Sénégal la rek benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñaar li am kañ mooy. man mën naa am sama xalaat ak sama bëgg-bëgg. mu bañ a méngoog sama xalaat ak bëgg-bëgg moroom. mais lu mel noonu buñ ci tolloo dañu am ay institution yu ñuy départager. donc man wax naa sama bëgg-bëgg bu amee sama moroom boo xam te ni sama bëgg-bëgg moom bëgg ko. dañuy dem fi nga xamante ni moom foofu la mbaxane doone benn ñooñu wax ñu kan am dëgg wala kan moo am dëgg. bu kooku waxee li yoon wax ba pare nag li si des si terrain bi la. dëgg bu mujj bi moom. sénégalais yi ko yor sénégalais yi ko yor donc ñun am nañu droit tànn suñu candidat bu ñu ko tànnee ba pare dem déposer dossier fi ñu ko war a déposer bu ñu paree kooku wax ñu ndax war na dem wala warul dem te ñun yaakaar nañ ni sax dafa war a mën a dem bu ñu kooku waxee ni mën na dem ñu dem ci terrain bi comme niñ ko daan defee campagne. porte à porte visite de proximité wane li mu liggéey wale lu tax ñu bëgg wañ loxoom pour que mu toogaat fi cinq ans parce que Sénégal moo ko soxla. d'accord est-ce que yéen a ngi bàyyi xel euh, jafe-jafe yi mën a juddoo ci troisième candidature bu ñu xoolee xew ci yeneen réew yi ñu war mais jafe-jafe moo warul am jafe-jafe moo warul am parce que dëkk moom lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee. man mën naa am sama bëgg-bëgg mu wóor ma ni dëgg-bëgg boobu moo gën si Sénégal keneen am xalaatam ne man sama bëgg boobu du gën si Sénégal moom bëgg-bëggam moo gën mais li ñu suñu maam yi bàyyiloon mooy dëkk jàmm li ñu koy may mooy waxtaan xëccoo certes parfois dina am mais nag sa cappaandaw la Sénégalais yi ñooy décider. si le peuple qui a le moom mot yi ñooy décider lu koy luy luy luy indi ay fitna di yee ay fitna amu amu amu fi te jaru ko fi ndax ñu ni nen la mu nekk opposition mu nekk pouvoir lu mën a am tamit ñu ni nen la bu amee ay gaañu gaañu suñu ñun lay doon bu amee leneen su ñun lay doon donc nañ ko waxtaanee ut ci solution dem fi mbaxane doonee benn li ñu yoon may ku nekk jël ñu dem fi ñu war a dem wax ak askan wi askan wi nag lu mu décidé ñu xam ni nag askan wi muy buur te ñun wóolu suñu bopp wóolu ne suñu candidat bi président Macky Sall moom la askan bi soxla ba léegi te bu ñu demee ak moom moom la askan bi di tànn moo tax ñu tegaat ko fi. d'accord ku wóolu sa bopp nag a ah, géew baa ngi ku wóolu sa bopp da ngay ñëw rek sëgg bëre. Hmm. saxlul wiir wiir <laughs> léegi moom mu ne woon pare na ci nag euh, xalaatam ak euh, taxawaayam boobu ngeen bëgg ko cee génnee nii daal. waaw dañ ko ciy génne parce que ñun gëm nañ ne suñu dëkk jar na ko jar na ko moom wax na bëgg-bëggam xam nga président ba fi ñuy toog nii moom waxul nii dafa bëgg sax dem ñun ñoo ko ne ñun ñoo la mayul choix dañu bëgg nga dem parce que ñun jàpp nañ ne président Macky Sall dëkk bi daf ko soxlawaat pour cinq ans moom daf ñu yóbbu ci yoonu développement indi ñu lu Sénégalais mësul xalaat lu mu Sénégalais musul foog ni dina ko am fii si dëkkam yaakaaroon na ni il faut mu jël avion dem ba dëkk jàmbur pour mën koo kii loolu yëpp moom mu koy jël di di ñu ko indi si suñu dëkk bi. dama ne bu ñu demee ba xool xam ni yoon may nañu ko mu defaat fi cinq ans ñun ñooy koy ñaan ñoo koy ñaan ñoo koy ñaan mu nangul ñu. nekk suñu candidat. fi mu ne kay forcé la nekkatul sax ñaan. dañ koy ñaan bu bañee nag ñu wañ loxo bi. parce que Sénégal jar na ko. Mm. Sénégal dëkk bi jar na ko. dëkk bi jar na ko xam nga mënuñu di tabax ñaari étage toj benn tabaxaat yeneen ñaar tojaat benn fan kañ la ñuy développé. Mm. pour une fois que ñu am koo xamante ni mi ngi ñu teg ci yoon ba mu fi nekkee 2012 ba léegi li ñuy naan li ne fàng kenn du ko jeex boo génnee léegi si bunt bi gis ko. xam nga dañuy naan sénégalais parfois am na ñoo xam te ne dañuy gaaw a fàtte xuy xamej bi ñu fekk fii 2012. bilaay ku ko fàtte ba wooteel fi keneen mu ñëw toog laa tal la di nga xam ne rëccu dina fekk jëf wees fii dañu daan dem Touba màggal Touba mais c'était le parcours du combattant c'était le parcours du combattant léegi Ila Touba bi rek ngay jël tracé ba yegg c'était religieux yi foo dem gis fa mandarga yi fa président def man keroog ba ma toogee di seetaan benn waay naan dama ne jëf président Macky Sall ndax koor gi si mbedd bi la ma daan fekk léegi ak teeram bi sama biir kër lay woor lay dogee dama ne loolu jar na wañ loxo président Macky Sall. alors bu weesoo euh, yëngal réew mi xëy na euh, ñetteelu candidat yi itam mën na yëngal seen coalition bi ngeen di bàkkoo ne moo fi gën a gudd fan dara tasu ko nangam ak nangam ndax ku mel ne Idrissa euh, bu ko waxul mu leer junj na ne moom troisième candidature àndu ci te xëy na sax bari na ñeneen ñu mel ni moom nekk ci ci biir coalition bi est-ce que yéen ngi sóoraale loolu ragaloo leen tam seen coalition bi jaaree fi ndax saay. waaw dañuy naan junj moom doy na borom xel wante dañu nekk si milieu boo xamante ni. ju ñu doyul borom xel dañuy xaar ba mu wax moom mi bëgg wax nañ ko xaar ba mu ñemee waxam ñu soog ci mën a wax. man daal ba jusqu'à preuve du contraire may toog di dégg moom mu ne dematul àndatul ak ñun man jàpp naa ni mi ngi ci suñu biir ba léegi. te loolu sax bu waree am ak ci moom ak ci ku mënti doon ñun suñu coalition coalition démocratique la ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga bëgg mais li wóor bu wóor mooy coalition bi coalition président Macky Sall la. moom la ñuy jàppale moom la ñuy liggéeyal keneen ku bëgg leneen tamit da ngay jël sa ndënd dem feneen samp ka fa wante suñu ndënd bii ñun président Macky Sall lañ koy sampal. digganteem ak sa seek mel ni lu xajam loo ci jàpp comme jàngat. waa xajam na xajamul loolu ñoom ñaar ñoo ko mën a wax nag parce que ñoom fu ñuy toog di si waxtaan ñun duñu ko fekkee donc. Euh, démb rek man dégg naa ay jigéenu Idrissa Seck yu président Macky Sall recevoir si euh, teewaayu euh, président Idrissa Seck man jàpp naa ni bu euh, diggante bi ña xajamoon à ce point xëy na doon nañu annuler rencontre boobu wala daal la leen lu di mel mais man teewuma ma fa woon nekku ma woon mais daal jàpp naa ni kilifa bu jóg dem seeti beneen kilifa ànd ak ay jigéenam gëm naa ni foofu moom man lu rafet rek laa fa mën a gis mais mënuma fa gis ñagas ñagas ba keroog ñuy gis leneen alors wax nga ne da ngeen a daje woon ci dimanche bi ngir euh, waxtaanee bilan président Macky saal ba mu indi leen ci ngeen jàpp ne moom doo nga war a doon candidat wu Benno ci 2024 mais bilan boobu est-ce que euh, jàppaate yeeg euh, salfaañ ak yelef doomu aadama xajamalu ko ñu koy wax bilan immatériel loolu aussi nekk tâche bu mag a mag tey ci ci ci Euh, régime am ak lu ñu mën a wax département d'état américain génne rapport ñaawlu ko euh, défenseur droits humains ci Sénégal naka noonu est-ce que loolu nekkul tey gàkk-gàkk boo xam ne itam mën na peut-être gàllankoor candidature bi ngeen di bëgg. waa dëkk bii de Sénégal moom ku fi deful dara yoon du du teg loxo si sa kaw ndax ñun bu ñu toogee fii di waxtaan c'est parce que dañoo deful dara. c'est pas parce que dañuy dem élection nag que moo war a tax nit yi yaakaar ne war nañoo mën a def lu leen neex wax lu leen neex te dara du leen fi fekk. wala lu leen fa fekk rek ñu ne waaw euh, euh, politique bi la loolu dafa yomb fii ñi deful kenn dara ñi ngi toog seen kër kenn sonalu leen ñi yoon teg seen loxo yëpp amaana am na lu ñu def parce que nag wax dëgg yàlla dëkk bi dafa am yoon du question ni dañu nekk ay politiciens rek dañuy nekk di def lu ñu neex suba ba ngoon bu ñu ñëwee ne la li nga def bu ko beneen sénégalais defoon ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi kenn du wax mm. yow nga ni parce que politicien nga rek boo ko defee ñu bu ñu la jàppee nga ni waaw kon contexte politique bi la waaw yeneen dëkk yi nga xamante ni nag dañuy ñëw di di ñu wax man je pense que ñoom am nañu lu leen doy seen biir dëkk yooyu lu ñu war a régler ñun demuñu seen dëkk wax leen naka lañu koy diriger donc xaaruñu si ñoom pour que ñuy ñëw suñu dëkk di ñu wax naka lañ koy diriger parce que loolu la ñuy woowee souveraineté et nous l'assumons. Hmm. donc daal jàppoon na yow loolu mën na doon gàllankoor pour yéen euh, li ñu jàppee salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama ci réew mi. man dama gisul benn ak ak yelleef bu ñu. salfaa ak faagaagalay adversaire politique. faagaagal adversaire politique moom fii moom adversaire politique bu fi faagaagal li ba yaa faagaagal sa bopp. Mm. xaw ma ndax wolof noonu la koy waxee. mais daal li wóor ba wóor mooy <laughs> ñun yóbbuwuñu kenn ci benn salon ni ko par force da ngay dem ñu bës la ba muy dem tàgguwuñu yëguñu ko ñun ci ñëpp ni ñëpp déggee lañ ko déggee couvre foo jot na mu dem seeti ndaw su mu war bu mu ne dëkk bës bës na ko ba pare kooku génn ne bës bi am na leneen lu ci am. am na amul ñun fekkewuñu nekkuñu ñu fa woon kon léegi ñun lan mooy si suñu yoon ba koy faagaagal bu toogee micro yi ñu tàll ko micro yi télé euh, caméra yi mu taxaw ne moom dafa yor rapport buy tuumaal euh, Mame Mbaye Niang waaw buñ ko woowee ne ko léegi yow rapport boobu animu mu ne rapport bi IGE la ne rapport bi IGF la pare ne rapport bi ah si internet bi laa ko gisee <laughs> loolu ñun lan lañ ci def boo fekkente ni da nga bëgg nekk da nga nekk kilifa si dëkk bi parce que duñ ko ko bañaal da nga war a gën a xool say taxawaay gën a xool say kàddu parce que loo xamante ni ku dul kilifa sax rafetul mu koy def ki nga xamante ni kilifa la bu am ambition am en tout cas euh, ambition la foofu nu ñu ko waxee si wolof. Mm. diriger suñu dëkk. Ah, yéene diriger suñu dëkk wax dëgg yàlla kooku moom moo war a xool balaa muy def dara wala balaa muy wax dara. mu teg ko ci yoon mais c'est pas parce que nag yow da nga bëgg diriger dëkk bi danga nga nekk ci opposition bi nekk politicien que da ngay def lu la neex wax lu la neex bu ñu la wooyee ne la kaay tontu si nga ni ah dañ maa bëgg faagaagal loolu dafa yomb. te yow li ngay def chaque jour say moroomu sénégalais def ko ñu téye leen ci te kenn du ko wax yow nga wax ñu ne la kaay tontu nga ne waa li ma nekk politicien moo tax ba nga xamee ni politicien nga am da nga am ambition da nga am ñu lay xaar da ngay xam fi ngay teg sa tànk xam tamit li ngay wax am ci ay preuve soo ko wax justice bi nag ñun ñëpp la fi nekkal ñun bugguñu dudul mu wax ñu fan la dëgg féete bu fekkente ni parce que liñ liñ si si si bu mujj bi moom ak maamay ñaa justice bi wax na indi ay preuve daan nañ la waaye taxul ñu bàyyi ah waa mais loolu xam nga nit ku nekk moom buñ la tooñee yow yaay xam liñ la fi tooñ fu mu toll ci yow est que loolu ak ni mu mënee yëngal réew mi ñu am ci preuve être ci ñaari yoon yi ñu ko jotoo woo tribunal wala ñett jotul ngeen dox ci tànk jàmm surtout yéen jigéen ñi. waa man li ma xalaat sax mooy wax dëgg yàlla xam nga nit boo tooñee ba xam ne da nga tooñ ah yow yaay def li war a tax ñu baal la mais mënoo tooñ ba pare taxaw euh, def lu la neex wax lu neex ba pare naan nañ si dox tànk jàmm parce que man tey bu ma ñëwoon fekk la nga toog ma tooñ la. li ngay xaar pour baal ma mooy ma ñëw ne la maa ngi jégalu mais doo tooñ ba pare ñu taxaw rek naan waa risque doo leen dem dox si tànk jàmm parce que war na yëngal réew mi mais taw loolu dafa waroo yëngal réew ñaari nit ñaari doomu sénégalais yu am problème dem sa fa nga xam ne doonee benn pour que seen justice bi nga xam te ni ñoom ñaar ñëpp moo leen tënk àtte leen loolu dafa amul dara lu mu war a jur coow. loolu warul jur coow te nag mooy si profito di wax suñu doom yi ak suñu rakk yi politique la. certes adduna bi nag loo fi gis ci nettali lay mujjee li ñu ñaan kañ mooy yàlla na nettali bi rafet mais li ñuy ñaan tamit mooy yàlla nañ ko fekkee parce que man j'ai l'habitude de le je le je la dernière fois ba ma gisee Mimi Touré ak euh, Ousmane Sonko ci benn scène politique j'ai pensé à ces quatorze jeunes yi nga xamante ni en mars deux mille vingt ñoo fi ñoo fi wàññeeku woon ñooñu ku leen fekk fi ñu tëdd ne leen Ousmane Sonko ak Mimi Touré dinañu bokk même seen. accolade di accolade di am même kii duñ ko gëm. moo tax ma ni muy pouvoir bi ak opposition bi mu ci am na ku nekk défendre sa gëm-gëm. mais bu mu jaral kenn mu ci bàyyi bakkanam parce que Sénégal dafa soxla ay doomam yëpp pour tabax. waaw ñu jeexal ak dialogue bi président woote keroog ba muy def discours ñu bari jàpp ne sincèreul mais jamono bi ñu toll nii lan nga jàpp ne mooy njariñal sax dialogue ci diggante way politique yi. waaye dialogue moom waxtaan moom nit bu la woone la kaay ñu waxtaan moo gën nit bu la woonee la kaay ñu xeex wala kaay ñu xulu. waaye yor yat naan kaay ñu waxtaan. Ah, ban yat la. ah xanaa dóore yeeg jàppaate yeeg ñoom seen. ah mais yeeg jàppaate yi moom ku fi deful dara kenn dóoru la kenn jàpp la te wax dëgg yàlla ay dóor moom ñun si beneen côté bi lañ ko gën a gis. ay yàq doo yëfu doomu sénégalais si yeneen beneen côté bi lañ ko gën a gis que suñu côté ñu nag suñu président moom ay la yow ñëpp xam nañu nitu jàmm la. moom si jàmm la mës a dox ndax 2019 ba mu gañee gañee ba ñëpp xam ne gañe na teewul ba mu njëkk ba mu génnee li mu njëkk wax mooy ñëw leen ñu waxtaan ñëw leen ñu waxtaan nag moom ma gën a ñëw leen ñu xeex moo ma gën a ñëw leen ñu xuloo Sénégal dëkk jàmm la lépp ci ay waxtaan lay mujj donc nañ ko njëkkee commencé ko ba xëy na dina am fitna yu bëri yoo xam te ni dinañ ko mën a éviter suñu njaboot éviter ko suñuy doom parce que quoi qu'on dise dëkk bi dafay continuer de ñun dina am yeneen génération yuy ñëw war ko doxal incha allah donc ñun ñun ñu si toll nii bu ñu bu puso bi réer si suñuy loxo. ñu ñu jiitu bàyyi nañu fi ba jàmm ñu ñëw fi ak jàmm nañ fexe ba bu ñuy dem tamit ñu bàyyi fi dëkk jàmm pour suñu ñii ñii ñii ñëw loolu nag waxtaan moo ko mën a indi. parce que ay nit bu ñu toogul waxtaan li ñu naan réeroo amul ñàkk waxtaan a am bu ku nekk bësee sa xol ñu xam ne li ñuy xëccoo ku si nekk yaakaar nga ni njëriñu sa askan bi yow yaa ko téye yow yaa ko yore. mais askan bi mi ngi fi na ku nekk wax li nga mën li ngay proposé tekk ci taable bi ba pare ñu bàyyi askan bi mu tànn. jërëjëf foofu la ñuy jeexalee waxtaan wi seeni Beye présidente parti convergence patriote démocrate euh, nekk itam coordonnatrice coalition defar sa bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen ñuy gërëm di leen sant vraiment di rafetlu seen liggéey bi bu baax. jërëjëf bu baax.